à l'endroit de l'opposition à l'endroit de forces vives xam ne ñoom bi dañu am seen droit ak seen cër. très ba ñu leen ko war a mën a respecter ba ñu ah. mën a nangu yoo toog ak moom. très bien alors Abdoulaye Mbow Ibrahima Pouye dafa wax lu am solo aujourd'hui tey euh, nee na quoi qu'on puisse dire biir F24 président bu wootee dina am ñu dem wuyu ji maam envie laaj la est-ce que kon ce ne sera pas le début quand même de la fin <laughs> euh, de cette plateforme bi nga xam ne am na ñu nga xam ne moom dee moo leen gënal dem wuyu ji le président Macky Sall par rapport ak Euh, président Abdoulaye Wade bi muy woote dialogue la dans le M23 euh, assurément xëy na amoon na ñoo xam ne ils ils étaient favorable pour mën a dem dialoguer mais peut-être que la majorité du non l'avait emporté ba nga xam ne ñoom dans le cadre de la plateforme bi nga xam ne dafa réuniroon opposition bi ak force vive de la nation moo xam société civile moo xam yeneen kuréel la dañoo bañ a dem wëji euh, ki nga xam ne moo doon président Abdoulaye Wade donc dans le cadre du MVF 24 du ñàkk parti wala mouvement boo xam ne amaana mun na ne je suis favorable à ce dialogue ma dama dégg Cheikh Ahmed dogguma la Cheikh Ahmed Tidiane Dièye ne woote woote te bi biir Yewwi la bokk euh, coalition ñu ci bëri ñu ngi biir F24 ma dégg ko mu ne woote woote dialogue respecter sa constitution da ko da ko gën fuuf. waaw effectivement loolu ça veut dire que est-ce que annoncé wul déjà xam nga sax avant Cheikh Tidiane Dièye Mimi Touré annoncé na les couleurs. par rapport ak li nga xam ne moom jàpp na ni président dafa nekk dans une dynamique de se donner les moyens de diviser à nouveau l'opposition d'accord par rapport à cet appel au dialogue kon boog damay jàpp ni plateforme bi xam nga gulet mu am plateforme bu toll nii jëm si li nga xam ne mooy xeex. li nga xam ne jàpp nañu ne ñoom mooy la défense de la constitution te défendre la constitution mooy xeex li nga xam moo di troisième mandat laal nañu yeneen poñ yoo xam ne dafa dafa nekk ci processus électoral bi jëm ci amaana parrainage wa ilaa yenn modification yi nga xam ne laal na article L29 ak ak article 57 bu code électoral bi donc dañuy jàpp ni rek Euh, si biir F24 bi donc ñoom kuréel la goo xam ne plateforme la boo xam ne jamono ji ñoom ñooy waxtaan seen biir ñoom ñooy xool effectivement naka la ak kañ la par rapport ak li nga xam moo di répondre oui ou non à ce à ce à ce dialogue te dialogue bi tam bu doon day am F24 comme entité la plateforme la ñoom bu leen neexee ñu tànn benn waa ba ñaar ba ñetti plénipotentiaire yoo xam ne ñoom moom la ñuy jiital bu leen neexee ñu ne ñoom dañuy tànn sax ka nga xam ne mooy dem si président Macky Sall dafay nekk ñaari plénipotentiaire yoo xam ne na dañu ne si ay acteur de la société civile la ñu ay jamono le Benno Siggil Sénégal dafa doon wax ni ñoom xam nga kan la ñuy jiital bu dee président nangul na ko pour mu def ay saytu ak liggéey ak waxtaan. Ah. moo di professeur Babacar Gueye di constitutionnaliste. Mm-hmm. donc ñoom seen biir bu leen neexee ñu ne ñun professeur nguur de je donne juste un exemple passant ah, moom la ñuy jiital. pour mu dem euh, euh, def li nga xamoon ni dialogue bi def les propositions yi nga xam ne F24 moom la bëgg président def am nañ si sañ-sañ parce que dialogue bi duñ ne ñëppay ñëw toog parce que il y a eu un dialogue politique au Sénégal dans le cadre du dialogue national il la commission cellulaire chargée du dialogue politique dialogue politique boobu à quoi ça servi bu fekkee ni bu fekkul ni ay yenn entente rek la ñu am jëm si li ma si gën a retenir mooy élire le maire au suffrage universel la l'APR bi APR bi APR bi nekk parti au pouvoir ak les composantes de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo doon jàkkaloo président Abdoulaye Wade ne ko pour ñu ñëw ak dialogue ak yow faw nga nangu l'instauration du bulletin unique instauration du bulletin unique dama joxe benn poñ am na yeneen yeneen yeneen poñ yoo xam ne ñoom dañ ko doon yëkkati dans le cadre euh, si li nga xam mooy nangu dem toog sur sur la sur sur sur kii sur autour de la table pour dialoguer est-ce que tamit président Macky Sall pour reprendre euh, euh, Idriss Seck est-ce que dina mën a yaatal dënnam ah dilater sa <laughs> poitrine ba nga xam ne effectivement dañu tàbbi si li nga xam ne mooy nongu yenn terme de référence yi parce que TDR yi ce sera autour de ça le président peut aller véritablement vers li nga xam ne mooy euh, proposion des termes de référence opposition bi mën na ci def ay ay ay ay ay retenu mm. ba pare wëlbatu ko def ay proposition Mohamed dialogue ba jiitu à quoi ça a servi ba jiitu ba jiitu c'était pour trouver des contours pour la grâce que le président devait accorder à Karim Wade avant véritablement de l'exiler donc il y véritablement ay bémol bien vrai que man je dis encore une fois dafa am ay poñ yoo xam ne il faut quand même mu am waxtaan goo xam ne moo ko mën a vider te loolu poñ boobu man jàpp naa ni parrainage bi parce que parrainage bi encore une fois nañ ko tëggee jamono ji du loo xam ne dafa respecter euh, fi Sénégal toll en terme de maturation jëm si wàllu démocratie te loolu itam dafa nekk benn gàkk-gàkk goo xam ne dafay gën a ñaawal xar kanamu démocratie Sénégal parce que itam bu ñu fàtte ni c'est une instance boo xam ne dafa nekk une instance sous-régionale mooy cour de justice bi nga xam ne mooy boo xam ne dafa bokk si kuréel gii di CEDEAO dafa joxe décision te defe naa ni loolu appliqué wuñu ko respecté wuñu ko te loolu yëpp tam dafay tax euh, waxtaan wi tam dina jafe parce que le en avril 2018 quand on votait la loi sur le parrainage y avait pas eu de dialogue alors euh, euh, Bamba très rapidement parce que bëgg naa ñu aborder troisième euh, euh, question bi mais daf ma yitteel alors sur l'appel au dialogue est-ce que le F24 doit doit doit refuser cette mais tendue quand même du chef par rapport ak dialogue bi mu bi ak tax conditions yi réunir na justement pour aller ci dialogue boobu. waa mais d'abord il faut ñu xam ba d'abord si kaw dialogue xam nga dialogue moom baax na kenn du ko bañ dialogue moom waxtaan dafa baax si réew surtout dialogue moom c'est une chose à saluer. mais bari ñoo wax ba xam F24 dafa war a dem wala nan la ñu war a dialogue dañoo war a xam ba xam qui a appelé au dialogue. le président Macky Sall. waaw c'est le président qui a appelé. moom moo toog ni ko Pouy waxee. moom moo toog stabilité dans ce pays. moom moo toog si 4 avril mu ne dafa bëgg dialogue toogaat am li nga xamante ne mooy aussi bi mu jàkkaarloo El Hadj Assane mu ne waxaat waxi dialogue mais ce n'est pas l'opposition qui a demandé à dialoguer c'est lui qui a demandé il faut ñu leeral loolu pour ñu comprendre que moom mi soxla dialoguer moom si boppam kon moom moo war a oyof loxo. moom moo war ubbi dënnam ay ñu war a poser condition pour ñëw. war a teg condition yi leer. pour ñeneen ñi fekk si non cest à boo dee condition day moom moom moo war su ma nee condition mooy maanaam lépp dafa war a leer. ci voilà voilà voilà voilà mais ñi nga xamante ne ñoom boobu ba léegi ñu ak yow ñoom woowu ñu la waxi dialogue waxuñu la waxi dialogue benn yoon ñoom li ñu wax mooy yow waroo bokk si élection yi mais ñooñu boo woowee nag kaa ñu dialogué mais ñoom foog ñu tegal seen i condition te conditions yi dama jàpp ne képp ku bokk si opposition boo demee si dialogue ak Macky Sall te amoo condition lu leen nañ lu la fa dal yaa tooñ sa bopp boo demee si Macky Sall wuyu jàkkaarloo ak moom te amoo ay condition leer lépp lu la fa dal ëllëg yaa dal yaa tooñ sa bopp naa benn affaire comme dañoo wax ne am na ñoo xamante ne c'est sûr que dans un mois ñu dem bëgg naa xam ñan ñooy envisage dem parce que ku voilà bëgg naa ko xam parce que ba dem te condition yi leeragul ëllëg dal ak Macky Sall boo xamante ne parce que Macky pour man ñi ko war a tegal condition pour toog ak ñoom mooy opposition bi parce que Macky boobu moom moo waxoon ne yéen opposition bi je vais vous réduire à votre simple expression kooku nag bala ngaa jël ak moom koy wax ne ko loolu nga waxoon wanaasuwaat ko loolu nga waxoon dellu si ginnaaw benn ñaara ba mooy Macky Sall woote na fi si Covid 19 bi woote na fi opposition bi ne leen dama bëgg ñu def union nationale si Covid bi pour mooy mbas bi ba communication sur le plan l'image est-ce que après jëfandiku na opposition bi bañ demee wul jukko palais benn benn ñaar ñaar ku ne dugg génn est-ce que Macky utilise na après opposition bi pour li nga xamante mooy union sacrée est-ce que woo na leen si liggéey bi mu doon def ak liggéey mbas yow bu la utilisé ba pare boo deful naa nga dëgg da lay sànni fële bu la jëlee ba xam ne Sénégal yëpp xamal la jaxasal ak Sénégalais xamal la di yéen a ngi fi ñëw ngeen da sànni fële mënoo see boole waa PDS bu fekkee ne la ñuy woote mi ngi dëgg la si ñoom waa PDS ñoom dañoo ne ñoom na amnistie yow xam nga ko. dañoo ne ñoom révision lañ soxla Macky Sall ne. sama sax wax na ko. Macky Sall ne sama dialogue man waxi la ku takku gedd sa yaay aye PDS boobu mënoo ko boole si dialogue bu fekkee la ñoo dëgg la si ñoom. mais mais parce que nag comprendre naa benn affaire. soo ma soo ma may si dialogue bi ah, avec ta permission. Cheikh Ahmadou Bamba euh, avant pour nga continuer quoi. Euh, on ne saurait avoir une révision bien sûr mënul nekk mënul nekk fii c'est-à-dire euh, euh, euh, fii dañuy ne maanaam amnistie conséquence su amnistie mun na mënul mënul concerner Khalifa Sall bay Karim mënul ne parce que ñoom ñaar ñëpp lañ leen lañ leen daane dafa laal wàllu koom donc bu ñu nee amnistie du amnistier la personne de Khalifa Sall il faut quand même waaw amnistie fee yi la ñuy amnistier donc Karim même bu fekkee ne révision lay laaj c'est-à-dire que nguur moom bu décidé nii dafay def li nga xam moo di eh, amnistie c'est-à-dire que toppatoowul ndax Karim lii la bëgg wala la bañ da koy def mu da ciy bokk moom mu bëgg ko da ciy mu bañ ko da ciy bokk donc loolu waaw xam nga mais man ah. dama ne loolu lépp c'est bien mais dama ne si waxi waa PDS yi ah, waaw waaw si waxi waa PDS ñoom dañoo ne ñoom bëgguñu amnistie révision ah, dañoo réviser lañu soxla kon kooku noonu ñoo pare wuñu pour toog dialoguer si wàllum amnistie Macky ne su nekkee bëgg na loolu ku génn si ay mën na nag beneen aussi mooy booy dialogue aussi opposition bi nga woote si nga xamante ne mooy sur le sur le papier di le papier ki nga xamante ne mooy Idriss Seck mën na revendiquer ne moom mooy le chef de l'opposition mais euh, mais Ablaye su le terrain sur le terrain mm. ki nga xamante ne moom lañ sant na mooy le chef de l'opposition mooy Ousmane Sonko kooku noon nag yow wax nga si parce que Macky Sall wax na si nee na wàllum justice bi sama yoonam nekku si kon écarté na kooku si wàllum dialogue bi léegi nag ñan la il faut mu wax ñan la war a dialogueel ak buy war a ak ñoom ñan lay dialogue ak si lan lay dialogue ak yan condition la ñu war a dialogue alors euh, euh, euh, da nga bëgg a sànni benn rappel mboolem ku mos a waaw lu tënk mboolem opposition bi ci bëri néew nañu def conférence de presse te wax ñu waxi dialogue ñoom ci seen bopp même la société civile bi sax le président Macky Sall moo woote laa toujours dit ONG 3D opposition bi ñu ci nekk ñëpp ku ci nekk boo defee sa conférence presse ba daaneel da nga naan dëkk ab dialogue ko ko def te war saa laa war a woote dialogue donc benn ils ont lancé d'abord le dialogue mhm. deuxième point bi ils ont donné des conditions l'opposition laay wax nga ko léegi mhm. modification code électoral bi L29 L31 L57 bi nga xam ne bokk na ci li privé nit ci droit de citoyenneté ci wàllu éligibilité loolu bokk na ci débat bi nga ne moom la gars yi teg comme condition muy F24 na ci aussi protégé constitution bi ba ci troisième mandat ñu arrêté ko donc am na condition conditions am ne opposition bi teg nañ ko mais ci biir loolu aussi am na ci loo xam ne le président les a répondu sur ça donc ñoom ñaar ñu ngi wax pouvoir opposition par rapport ak dialogue nag buñ ko wootee tey Ousmane Sonko mu nam dossier wu justice Karim Wade ak Khalifa am dossier wu justice. te du tere. Hmm. ñu ñëw toog hmm. ci table dialogue lu jëm ci intérêt dëkk bi ce qui n'aura rien à avec leur dossier de justice. Très alors il nous reste ça il faut minutes. aussi que Sénégalais yi bàyyi. il nous reste cinq minutes très rapidement un tour de table Ibrahima Pouy Idrissa Seck est-il le nouveau chef de l'opposition comme il le prétend. oui il par rapport ak nombre de voix yi ci élection yi passé kenn du ko ko parce que amul benn. document bu officiel bu ñu bind signé ko ne x ou y mooy chef de l'opposition voilà effectivement ci ay ci ay acte mais bu ñu koy def ci ay fait wala lecture politique lecture politique fait ay acte loolu yëpp c'est des suppositions <laughs> des fois aussi c'est virtuel des fois c'est la pensée de la personne mais administration muy politique que muy étatique këyit la lu officiel amul benn document bu officiel bu état du Sénégal génne signé ko ne PDS mooy chef de l'opposition wala Pastef wala réew mi ku ci nekk da ngaa teg say schémas sur le plan politique kene le PDS il se trouve que gis nañ ne à part le Benno ñoom ñam doole ji biir assemblée ñu ngi revendiquer chef de l'opposition parce que nañ fa lañ koy valider Idriss Seck mu ngi xool par rapport ak élection yi passé avant mu jël ay kartam di ko jox président Macky génnaat na ci Macky est-ce que day jaraat carte yu mu yóbbaale woon merci Ibrahima mu ngi koy revendiqué ah. waa Pastef ñu ngi koy revendiqué ci Ousmane Sonko mais ñoom ñetti camp yooyu yëpp képp kuy opposition ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku ci nekk da ngaa ne ci virtuel. nekk ci supposition ah, mais li officiel amagul. am na ku ma dégg yi ci yéen ñaar ñëpp xaw ma kan la ci Bamba ou Ibrahima Pouy ci eh, ba muy analyser sànq mu ne Ousmane Sonko est le chef de l' opposition. ban su Bamba alors euh, euh, xam nga xam nga le débat le débat s' entre. le chef de l' opposition le par rapport ak résultat législatif yi kan moo jiitu woon. PDS instant yi jiitootul le débat s' était également posé kan mooy deuxième. Euh, si élection présidentielle bi ñu jàppoon ni nag comme dañoo nekk si régime présidentialiste effectivement euh, ku génn deuxième si élection présidentielle bi mm-hmm. amaana njort nañu ni yaay chef de l'opposition dontale application bi ak applicabilité bi c'est c'est c'est mm-hmm. réel parce que itam euh, révision bi topp ñu ko jëm si li nga xam ne moom la ñu waxoon jëm si copparti yi nga xam ne dañ ko doon andi si parti politique bi te njortoon nañu foofu la ñuy tabbee pour dañ ko koy

aujourd'hui il est détrôné il est déplafonné il est dépassé moom il est dans une séance de rattrapage te rattrapage boobu muy def c'est dans la communication la ko mën a amee mais sur le plan de la réalité politique et sur le plan de la réalité électorale il a été déplafonné étant donné que a ak la mu jiite au niveau de Thiès il a été battu au local moom ak la mu jiite au il a au niveau de Thiès au législatif donc aujourd'hui il est détrôné politiquement et électoralement très rapidement il nous reste une minute. waaw lañ koy bàyyee. waaw li ma si eh, mooy eh, eh, et les gens en ont ri vraiment nit ñi reetaan nañu ko ba ñu déggee ne <laughs> Idy il se permet quand même de dire que moom mooy chef de l' opposition am nañu ko ko nangul mais sa jàngat par rapport à cette situation. Euh, Mohamed compte tenu de de Mohamed il comprendre que dëgg du neex. dëgg du neex foog ñu foog dire la vérité mooy sur le sur le sur le sur le papier Idrissa Seck peut se revendiquer être chef de l' opposition. sur le papier si wàllum bind comme ni nga ko waxee si wàllum li nga mooy ay texte sur le plan juridique rek. su waaw voilà mais dama bëgg a wax ne. li nga xamante ne aussi mooy depuis li nga xamante ne mooy les événements de masse qui se sont passés il y a un changement dans la politique sénégalaise que Macky Sall a formé a fabriqué un nouveau leader de l'opposition qui s'appelle Ousmane Sonko. il a formé de nouveaux politiciens qui se nomment les pacifiens depuis mois de mars 2002 2022 ba léegi pourquoi je dis ça parce que sur le terrain celui qui s'oppose à Macky Sall mooy Ousmane Sonko celui qui met la pression au gouvernement c'est Ousmane Sonko te loolu noonu nag boo ko bëggee dégg mooy si li nga xam ne élection yi da koo wane élection législative yi coalition bu Ousmane Sonko bokk ak waa Pastef c'est la locomotive moo xam ne locale wala législative ils ont battu largement si li nga xam mooy wàllu mairie yi ñi nga xamante waa parti au pouvoir si wàllu euh, ki nga xamante mooy député yi à l'Assemblée dañoo ñëw talonné waa ki nga xamante